thank you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 ak euh, sunuy façon euh, chaque mardi nag da ngeen ci ànd ak euh, Moustapha muy ñëw di décrypter li nga xam ne moom moo ci actualité bi Moustapha Diop mu ngi yegg si nag sax ci plateau bi Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax jaxate di nuyu également techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale bañ mën di def live bi mm. talaata bu jot ci waxtu wi. rawatina Umar euh, Silla mi toog. Mm. mais également euh, xaw ma dañ ko invité xaw ma invité boppam Ablaye Bopp parce que bu may dugg gis naa ko mu toog moom it di seetaan <laughs> maa ngi koy nuyu baax moom euh, Serigne Abdoulaye Bopp di nuyu tous les Sénégalais. Mm-hmm. et tous les Sénégalaises qui nous regardent d'ici et d'ailleurs particulièrement les Sénégalais des États-Unis ak Canada. Mhm. Euh, parce que très souvent quand même damay jot seen ay messages yu bëree bëri et c'est très fréquent. Mhm. Euh, tey ci suba rek maa ngi ciy jokkoo kenn ku may wax ci mbiru Pape Sané ku ko mhm. fonk lool xam naa dinañ ci waxtaan léegi ci kanam. tout à fait leen nuyu di leen ziar leen wax ne ils ont tous comme dit Assane Gueye. bonjour wala le bonsoir de Moussa Fadio. ah <laughs> <laughs> bonsoir de Moustapha ça dépend euh, de du bi ngeen nekk alors Moustapha gannaaw bi ma la laajte bu baax baax ziar la mhm. et puis euh, am mbégte jàkkaarloog yow tous les mardis comme on a l'habitude de le faire ci live de Moustapha tey nag euh, wax dëgg yàlla live bi gars yi dugg nañu bu yàgg di xaar parce que mhm. xam naa certainement ils vont pouvoir euh, xam ci ay nouvelles u Pape Sané parce que nit ñu ngi préoccupé démb ak léegi mhm. man j'ai reçu pas mal d'appels depuis ce matin ñuy laajte Pape Sané fan la mujjee peut-être l'occasion comme yow déjà ci administration na am nga ci ne xamuñu mën nañ ko waxtaanee également ci live bi. Mhm. mais également waxtaanee peut-être situation wu Ousmane Sonko. ci mhm. dernière nouvelle yi sax nee nañu euh, dañu koy euh, yóbbu ca Cap Manuel. loolu peut-être mën nañ ci wax ak situation de santé peut-être est-ce que bu fekkee dañ ko yóbbuwaat Cap Manuel. Mhm. peut-être mën nañ njort ne peut-être tane na ak ni ko doon njortalee ci ay mbir loolu aussi mën nañ ko waxtaanee waxtaanee peut-être Moustapha beneen situation également. Mhm. muy toujours le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba bi nga xamante ni déjà balaa moo saxaw taxaw sax jàkkaarloog sénégalais mhm. war na mën a taxaw d'abord jàkkaarloog son <laughs> propre parti. <laughs> comme comme on le dit yooyu yëpp tey bokk na ci mhm. ay informations yoo xam ne nii war nañ ko mën a commenter noo ensemble mais Moussa Ba balaa ñoo commencé rek. comme les sénégalais de la diaspora d'ici et d'ailleurs aussi ñu ngi ñuy suivre. ci ci live bi. déjà ñu ngi peut-être euh, déjà commencé wuñ sax presque mille sept cent et quelques voire mille huit cent. doomi aadama ñu ngi pointé wu depuis mhm. di ñu xaar di ci nuyu rek ki nga xam ne moom moo di euh, mayga bi la tuddee boppam waa mhm. Mata Seck aussi ñu ngi koy ziar bu baax a baax Mor Sall moom de pointé aussi depuis Babacar Meng jaajëfal la bu baax a baax mhm. euh, Babacar euh, Meng bi wax naa ko Abdou Sadio hmm? di nuyu ko ci mel ni Youssoufa Niang Moustapha dema edewaale Youssoufa Niang waaw mhm. soo ci gisee ngeen ñi rek nga cité leen mhm. parce que ñoom aussi dañuy bëgg ñu leen def un petit coucou ndax Moustapha ki nga xam ne nii moom mooy wax nga di ko déglu mhm. yaakaar naa ne da nga ko war di boole sa bopp saa su nekk mais ñoom live bi ñoom ñoo ko moom ñoo ko moom soo di leen cité pour ñu xam ne que yow aussi vraiment yaa ngi gis yaa ngi suivre bu baax a baax a baax li ñuy def c'est très important Salif Ba Omar Tall mm. Bass Dramé waaw àdduna amul solo lu waaye def boppam mhm. j'aime bien sa <laughs> euh, Mam Mor euh, Mbaye mu ne merci beaucoup Moustapha mm. Bakary euh, Sagna Saouma Niang Euh, Cheikh euh, Ndiaye moo xam naa dafa añ ba pare doog a toog xaar ñu. Mm, mm. Euh, Babacar Mbengue également Anta Niang Abdou Sadio. Khadim mm, Sall. mu ne Moustapha xam naa temps yi metti na lool si yow. Mm-hmm. jiite télé ñuy jàpp sa ay éléments rek mm-hmm. neexul di la masaw mais amul benn solo Khadim incha allahu rabbi tout cela ci nettali lay mujj. ci waaw yàlla nañ dund ba kay bay nettali naan lii jaaroon na Sénégal. et que nguurug Macky Sall <laughs> wal faji dajoon na ci lii mais yàlla baax na mm. euh, Sidi mu ne moom ci Touba lañuy bindee euh, Mor Ndiaye Kébé il faut que Silla euh, Mbay Pomrol xaw ma lu kooku xaw ma ban sant la mais bon lu nekk am na fi nag <laughs> Galas Diop Youssou Ndong Alexis Steinmauer euh, euh, Babacar Mbengue wax naa ko. ça man mes commentaires vont vont vite là je sais pas je les commentaires je je juste les noms. et puis je j'essaie de retenir certains commentaires. oui Adama euh, mu ne Moustapha yoonu dëgg daa metti lool. ku ko musa jël rek nii lay demee waaye yàlla. yéen la àndal incha allahu rabbi on a cette cette conviction là que ñu Aïcha ñun li ñuy li ñuy def mhm. man man loolu mooy sama satisfaction à chaque fois euh, mm. quand je rentre chez moi la nuit dama naan ma satisfaction c'est que amul dara lu ma def mm. teg ko ci hypocrisie wala lu neex doomu aadama mm. wala bëgg koom mu ma ci am je dis les choses ni nga xamee ne noonu laa ko xalaate et ni ma yaakaaree ne mooy njëriñu sénégalais yi ak parce que man sénégalais la avant d'être quoi que ce soit ni ma yaakaar ne mooy seen njëriñ noonu laa koy waxee mm-hmm. maintenant njëriñ lu la ca fekk nga xam ne loolu moo la ci fekk te man mm. depuis quelque temps wax naa ko waxati ko dafa am loo xam ne dama koo gëm mm. euh, mooy euh, wa baatu wolof boobu muy wax ne njëriñ loo fekkee ma ne man mm. gëwuma njariñ loo fekke mm-hmm. euh, njëriñ loo fekkee man pour man comment est di qu'on dit njëriñ loo fekkee pour man égoïsme la c'est de mm-hmm. l'égoïsme parce que bari na njëriñ yoo xam ne ay nit ñoo ko samp fii boo doxoon fii ci mbedd mi rek mën ngaa dem ci ak ker goo xam ne danga nga ca toog keru ca ba kontaan ah yenn saa sax moom fruit nga lekk ca ah te ka ko fa def xëy na nekkatul sax ci kaw suuf voilà donc yooyu yu am solo la Abdou Aziz Samb également waaw Abassé euh, merci merci exactement Lamine Gueye Bas Dramé Moussa Thiam mm. waaw ñooñu ñëpp daal ñu ngi leen nuyu di leen di leen sànnu si Sanusi Babacar Mbengue mu ne Walf suñu yitte walaay xam nañ loolu Babacar am na ci ku ma gis sànq moom ñang la sant mu ne Moustapha sama nijaay ma ne ko yow tamit sama nijaay nga parce que man euh, Diop laa sant waaye daanaka sama lépp ñang la mhm. Ablaye mhm. faal mu ne euh, Moustapha la Ablaye Fall moo tuddee Moustapha doom euh, mhm. Alioune Diop moo ko moo ko wax maa ngi koy ziar ba Alioune wax nga dëgg de am naa turandoo ma nga ca Mbour ma koy ñaanal di ñaan yéen si ngeen ñaanal ko yàlla barkeel ko may ko gudd fan ak ay wéy juram rawatina mm. papaam jooju di Ablaye Fall nga xam ne moo ma tuddee doomam boobu te yàlla def na mosuma teg bët à part la télé mm-hmm. ci télé rek la ma gisee am doomam tuddee ma ko te li ci gën a neex mooy eh, daf ma ko tuddee pare woo moom la fi am numéro ci kër gi mm-hmm. wax ko ko pare ne ko waxal ma ko Moustapha oustaz ne ko non non eh, mbir yi du demee noonu dama lay ah. jox numéro nga woo nga wax ko ko parce que parce que moom nee na bëgguma ko woon wax ba mu ndax ma yaakaar ne dama am lu ma ci war a def fa mbir maa ngi koy sant di ko gërëm baax a baax Mm-hmm. Euh, waaw voilà mi ngi noonu. am naa ne xëy na fii ñuy pare bu ko jot gi mayee. <laughs> Eh. ñu jëlaat yeneen non kii mu ne le patriotisme la tuddee boppam. Mm-hmm. nee na mu ñuy nuyoo ca dëkk bu tudd Mbulem ma. Mbulem waaw Mbulem ma xaw ma fan la nekk senegal ma xëy na mm-hmm. dinañu ko wax ci biir. Samba Ndiaye depuis Sokone ñu ngi koy nuyu di ko ziar euh, waaw waaw waaw waaw noonu la de. Euh, Youssouf Ndong également. Euh, Ngone Sey Ngone ñuy naa la ziar naa la. Ousmane Lo waaw kii Moustapha Bey mi moom taf la ma woowee. <laughs> am na am na gone gu jigéen gu nekk ca TFM nga xam ne moom yàlla dafa def dafa xaw a yaradiku. Hmm. Asumben la tudd moom taf la ma daan woowee. taf waaw <laughs> Asumben sa la. <laughs> kay nuyu di ko ziar. bu baax a baax. alors kon Moustapha mhm. euh, macha allah en plus de 3500 euh, internautes déjà mhm. pointés en direct bientôt 4000 ñu ngi fii également duñu duñu suivre mm-hmm. kon yaakaar naa ne dañuy xaar li nga xam ne aussi moom moo di waxtaan bi bu baax a baax mm-hmm. et que mm-hmm. aujourd'hui Moustapha waxtaan bi mënuñu koo commencer te waxta waxuñu probablement ci li nga xam ne dalaat na encore groupe Walfadjri et duñu ne dalaat na encore tu as bien fait de le dire comme ça groupe Walfadjri te duñu ne guleet parce que c'est pas la première fois ñuy fëkk ay euh, employé Walfadjri di leen yóbbu comme ça euh, pour euh, des enquêtes wala sax ay convocation mais bii nag dafa xaw a spécial un parce que hmm. convocation bi ak jël yóbbu bi moom moo moom moo ànd hmm. euh, peut-être revenir si euh, ay circonstances arrestation bu Pape Sané hmm. yow mi nga xam ne démb guddee ngeen fële nga xam ne moo di section de recherche parce que da ngeen doon accompagner quand même quoi qu'on mhm. euh, kenn ci ñun muy muy muy Pape Sané mais également nekk proche collaborateur bu groupe bi ndax mhm. euh, foo tourné ci ay plateau donc ci seen donc lu ko lii dalee yoon la administration bi gunge ko rawatina yow mi nga xam ne yaay directeur euh, télé bi ak rajo bi lan la ñu mën a jàpp ci jàppum Pape Sané gis nga Aïcha li ma buggoon a njëkk a wax mooy man c'est vrai Walfadjri laay liggéeyee c'est vrai maa ngi fiy bëgg a yàgg c'est vrai man maa jiite rajo bi ak télé bi mais su may xool liggéeykatuwal liggéeykatu Walfadjri mm. journaliste Walfadjri mm. su may xool chroniqueur yi nga xam ne ñoo nekk ci faj Walfadjri di intervenir à la télé di intervenir à rajo mm-hmm. di intervenir euh, sur la chaîne YouTube bi nga xam ne ci lañ nekk nii mën ak yow tey mm-hmm. gis nga su may xool ñooñu muy Mame Birame Wàcc di Pape Mokhtar Diallo Pape Sané Awa Diop Ndiaye Georges Nesta Diop Euh, Pape Ndiaye ak xëy na ñeneen ñu ma fàtte su ma leen dee xool xool tous ces jeunes la gens là ñi nga xam ne ñoo nekk dans la rédaction de Walfadjri man damay am un immense respect pour ñoom yàlla xam na ne su ma fi liggéeyul woon tamit dinaa am respect pour ñoom damay am estime pour ñoom mais également dama leen di naw. Mm-hmm. Euh, bokk na ci sax xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo intervenir notamment ci réveil euh, ci petit déj ak yooyu dama su ma leen seetaan dama leen naw xam nga lu tax. mooy ay journalistes yi ngi nii yoo xam ne fii ci Sénégal la ñu juddoo fi lañ yaroo fi leen jànge mhm. ñu ci bari ci ñoom muy yow di man di keneen mhm. du ñu toog fenn naan école bii la ñu jaar mais ñu ci ëpp ci ñun dañu def école journalisme génn ñëw di mhm. liggéey ci bërëb tout choisir benn groupe de presse boo xam ne ñun ñëpp bi ñu nekkee xale xëy na wala boog bi ñu nekkee di seetaan nekk téléspectateur auditeur rek dañu amoon fu ñu teg Walfadjri ne fii bis bu ñu fay liggéey yàlla dinañu dimbali ñu mën a exprimer suñu ay euh, nu ñu koy waxee sax suñu ay euh, euh, opinion librement. loolu Sidi Lamine Niass nekk ci kaw suuf di ci xeex pour que les gens yi nekk fii di exprimer wu librement Sidi Lamine Niass jóge fi nekkatu fii doomam Cheikh Niass nekk ci kaw groupe bi tous les jours muy xeex pour que les gens yi nga xam ne ñoo nekk fii di exprimer wu librement. yàlla xam na ne il peut arriver parce que njiit njiit la il peut arriver que ñun ñu wax loo xam ne dina ko gêner wala xëy na mën na ko yàqal sax ses affaires. Mm. mais teewul respect bu mu am ci les gens yi fi nekk du ne kenn bul wax lii bul defee nii. ay Aïcha ces gens la muy Pape Sané mi ñu jàpp tey naaj ñëwaat léegi di Mame biram mm-hmm. Pape Makhtar Diallo. Euh, Pape Assane mi ci ñëw bu yàggul dara ñoom Georges Nesta Awa Diop Ndiaye. Mm-hmm. da leer ne euh, sànq rek am na benn imam bu may waxtaanal bu dëkk Touba bu wax yu mel noonu ñoom tous les jours tous les jours que Dieu fait depuis en tout cas mars deux mille vingt et ba tey fi may waxee ak yow nii tous les jours heure bu ñu yeewoo ci pression la ñuy dund. c'est-à-dire heure bu ñu ñibbee seen kër en liberté journée bu bu ñu rëcc la. li naan jigéen du raw day rëcc c'est-à-dire que heure bu ñu ñibbee les gens de Walfadjri la ngay gis ni ñuy sourire di reetaan di ñëw di liggéey dem di ñëw. heure bu ñu ñibbee seen kër ba tëdd julli xaw ma wala def la ñuy def tëdd seen lal. Hmm. journée boobu journée bu ñu rëcc la. di xaar. journée ëllëg bi xamuñu lu ciy xew et pourtant ces gens là ils continuent à faire leur travail comme si de rien avec courage ak abnégation ak responsabilité ay nit a ngi nii yoo xam ne man wax naa ko te incha allahu rabbi su ma yàlla may wér doole ji lu may lu may bind la ci livre ñëpp xam ko ñun bu ñu doon raconter li ñuy subir ci ay menaces mhm. ci ay menaces di ko subir ci ay saaga yu ñuy yónnee hmm. di ko subir ci ay suñu yëf yu ñu yàqal ñu koy ñu koy démaale en se disant que ni de toute façon notre métier moo ko laaj mais day jeex Sénégal moo ëpp loolu Sénégal moo ñu sut mhm. ñooñu man dama am un immense respect pour ñoom parce que euh, xëy na man mm, dama ci gën a visible parce que man maa man maa jiite hmm. suñuy wax man la ñuy wax suñuy woo man la ñuy woo mais ces gens la mais ils sont merveilleux démb dañu dugg euh, gendarmerie man ak euh, maam Biram Waj defe naa Abdallah moo ñu doon tooñ laa mu ne maam Biram yow ak Moustapha waru leen waru leen da ngeen war a waru leen woon a ñëw wala da ngeen waroon nekk ci ginnaaw parce que yéen dañ leen xàmmee quoi <laughs> mais mais mais pour te dire que ni c'est avec cette pression là que l'on tous les jours te li ci metti mooy da ngay ci benn réew boo xam ne en même temps tu as tes confrères mm-hmm. yoo xam ne yéen a jàngandoo ñenn ñi bu avez fait les mêmes rédactions ñuy continuer di def le même travail que tu fais ñoom dañoo choisir di ko defee neneen yow nga choisir di ko defee neneen ñoom amuñu ils sont à l'aise am fu ñu bëgg dem dem fu ñu bëgg a voyager voyager ku ñu bëgg waxal waxal alors que ñun euh, il arrive même que ñenn ñi di la ñenn ñi di la moytu lépp yomb leen très bien maintenant mhm. le cas de euh, Pape euh, Sané may wax ni moom it dafa bokk ci nit ñi nga xam dama am respect ñoom parce que Umar mi ngi ma koy wax léegi mm. naan ma Pape xamoon na dina ko jàpp que moom ci moom il le disait te li ci xaw a euh, li nga xam ne moo ci doy mooy man démb bi may yeewoo defe naa ne su ma juumlu daal midi mooy jot wala quelque chose comme sa mm. dama jot un appel euh, ci kenn ci suñu ay confrères sama mag la bokkul nekkul sax Walfadjri mu ne ma Moustapha est-ce que euh, am nga contact gu mën nga ma jox contact gu Pape Sané ma ne ko qu'est-ce qui se passe mu ne ma dafa am benn journaliste jigéen la sax la ma wax boo xam ne gendarme moo ko woo. Mm-hmm. ne ko dafa bëgg mu jox ko contact gu Pape Sané et mu wax ko aussi ban heure la Pape Sané nekk Walfadjri quoi léegi sama grand boobu mu ne ma man j'ai l'impression ko gars yi dañuy dañuy wër Pape Sané mhm. wala dañ ko bëgg a jàpp mais soo ko mënee woo nga wax ko après bon euh, mu xam quoi au moins il se prépare wala voilà ma ne ko d'accord y a pas de euh, comme j'avais une réunion à Walfadjri je suis venu très tôt mhm. plus tôt que d'habitude bi ma ñëwee ma dugg réunion Aïcha bi ma toogee ba ba 16 heures jot euh, dama woo Issa Tine ne ko demal nga dugg rajo nga xoolal ma keppaar gi ñan ñoo fa nekk Issa xoolal ma ne ma Georges mi ngi fa ak Awa Diop Ndiaye ak pap Sané ma ne d'accord mën naa ne sama réunion parce que dama waroon def keppaar gi ma ne kon jarul may dem mën naa continuer sama réunion mhm. et puis ça me ñu ne ma Pape Sané mi ngi fi donc ça veut dire ni kenn jàpp ko mhm. bi ma toogee ba réunion ba pare ba ñu euh, génn ba ma ñëw sama bureau toog laa gis appelu Pape Sané mhm. ma woo ko Euh, man comme je l'appelle toujours grand pape ma ne ko grand pape j'ai vu que yaa ngi may woo treize euh, sànq ba léegi qu'est-ce qui se passe mu ne ma maa ngi ci auto gendarmerie jëm section de recherche ma ne ko quoi mu ne ma wéy dañ euh, ma convoqué ma ne ko pourquoi mu ne ma non en fait moom xamul lan la en tout cas ñu ngi koy yóbbu te effectivement ñi nekk buntu Walfadjri mën nañ confirmer que ni fii lañ ko joxee convocation jël ko yóbbu alors bi loolu amee euh, man li may def très souvent te loolu Pape mii naaj ñëw léegi euh, mm-hmm. bokk na ci lu ma ko daan defloo man ak moom suñ daan dégg kenn suñu ay confrères mu nekk Walf wala mu nekk feneen dañ ko woo wala dañ koy inquiété ci dara ñu dañuy jël suñu téléphone ku ñu xam ñu woo la. Mm-hmm. pour xam qu'est-ce qui se passe nangam ak nangam affaire yooyu. alors bi 17 heures euh, passé konk vers 18 heures ñun lañ fi jógee ne comme mi ngi section de recherche ñun nañu dem. Cheikh Niass moo njëkk a dem ak ànd ak Abdallah ak monsieur Faye l' administration quoi. Mm-hmm. man ma topp ci ak euh, Seyni Diop ak euh, Mame Biram Wàcc mhm. Aïcha bi ñu demee section de recherche euh, fekk Pape Sané mu toog gendarme yi toog et man Pape Alé Niang waxoon na ma ko et je pense que am na solo ñu koy ñu koy wax moo di ne mhm. ni ñuy traité nit ñi buñ demee par exemple commissariat central dafa wuute trop ak ni ñu leen di traité bu ñu demee gendarmerie section de recherche notamment mhm. man ma demee section de recherche j'ai trouvé un Pape Sané très serein ñu teg ko mu toog fu baax bon kenn amul kenn bëggul toog foofu. Mm. mais en tout cas amul benn inquiétude sur quoi que ce soit ñun aussi les gendarmes yu fa nekkoon <laughs> man xawma c'est peut-être c'est la euh, li mu nekk euh, gendarmerie li mu nekk si c'est xawma li ñu nekk ay militaires la ou pa mais c'est des gens Aïcha très ñoo xam ne boo ñëwee il t'accueille très bien même le chef de la section de recherche mm. expliquer la exactement explique la mm. pourquoi ils l'ont appelé voilà bi ñu toogee ba booru euh, je crois vingt heures vingt une heures lañ ko auditionné. Mhm. ñëw na fa dix neuf toog na fa presque deux heures de temps yoo xam da nga toog di xoole rek ñun ñu toog ci ngelaw li di xoole tu n'as rien à euh, xamoo lan la quoi bi ñu ko commencé auditionné euh, l' avocat de Walfadjri ma nga fa woon Cheikh Niass ci boppam il a participé à l' audition. Mhm. bon man après d'ailleurs c'est l'occasion pour man de les remercier muy maître Khoureychi Ba ak maître Ousseynou Fall ñi nga xam ne ñoom dañuy ñëw te loolu naa ci ñëwaat sànq lan moo tax la presse sénégalaise bu ñu déggee mel noonu du ñu réagir spontanément mhm. ñoom avocats yooyu dañu c'est des avocats qui défendent les droits de l'homme mhm. ak ku mënti doon man mi biñ ñu ma woowee ñoom ñoo ñëwoon mhm. ils sont venus spontanément ñëw dugg laajte qu'est-ce qui se ñu expliquer leen ñu ñu kii quoi après bi ñu ko auditionné jusqu'à ay vingt deux heures passées lañ nañu euh, léegi dañ koy placer en garde à vue comme ça mooy dañ koy téye fi lay naturellement ñun lu ñu bëgg a xam mooy qu'est-ce qui se passe est-ce que dafa am loo xam ne daf koo wax ci penco wala mu wax ko ci réveil wala mu wax ko ci laay bi muy def man pour man maa ngi doon xalaat maa ngi doon wax sax Assane Gueye naan ko est-ce que yéen ñi nga xam ne vous suivez tout le temps euh, qu'est-ce que Pape a dit semaine bi parce que man j'ai fait penco avec lui euh, gisuma lu mu fa wax voilà euh, exactement man su ma yeewoo suba léegi mm. depuis quelque temps c'est ce que je fais damay yeewu toog seetaan réveil jusqu'à ce que may mm-hmm. mu wax loo xam ne mën nañ ku ci topp. Mm. après ci la ñu dafa am benn poste d'ailleurs poste bi ngi sama téléphone ma jàkkaarloo ni dafa am benn post boo xam ne poste mooy texte boo bind def ko ci. Euh, Facebook euh, texte bi Aïcha bu mu ko xoolaatee matul matul cent mots. Mm-hmm. boo ko doon boo doon wàññi mooy Pape bind matul cent. texte bu ndaw la boo xam ne Pape mi ngi ko bindoon en deux mille vingt et un. Mm-hmm. te lu mu ci jublu woon mooy rendre hommage général Jean Baptiste Tine. mi nga xam ne moo jiite woon gendarmerie et que après les événements de mars 2021 ci lañ ko jëlee gendarmerie Pape ne ko sénégalais yi duñ la fàtte loolu la wax Jean euh, Jean Baptiste Tine daf ko bind ne ko Sénégal duñ la fàtte mais ci biir texte bi mu ne moom mu ngi naqarlu moom Pape Sané conditions yi nga xam ne moom la Jean Baptiste Tine noonu lañ ko jëlee ci bopp gendarmerie alors qu'il était à trois mois de la retraite yu mel noonu rek joxuñu ko occasion mu tàggoo ko ay exactement léegi le le poste en question mhm. euh, Pape daf ko reprendre ci page Facebook am y'a normalement sept jours tey donc man quand bi vu ça dama ne mais poste même bu fekkoon ne lu bees la mu bind ko ba mu am six jour ci mhm. page am ñu koy soog a woo mais c'est parce que bindu fi bindul dara lu lu lu graw franchement il faut ñi may seetaan ak di ma déglu nañu nañu lire le poste vraiment y' a a vraiment rien de de de méchant vraiment rien de méchant mais dama yaakaar ne li tax euh, xëy na alerte walla li tax autorités yu jóg mooy post boobu dafa am site internet yii. Mhm. yi ñu tuddee ay sites yi ñu tuddee euh, ñoom dafa am ñoo ci xam dañ ko reprendre. Mhm. am nañ koo xam ne daf ko reprendre bind xaw ma lan euh, Pape Pape Pape Sané sa lâche. c'est c'est ngandal affaire bi quoi c'est-à-dire que comme si Pape Sané dafa def benn interview ak benn journal wala benn site internet di ci wax ay wax ju bëri alors que c'est un poste de cent mots matul cent mots peut-être que que je de devoir raconter mais en tout cas ce dont je suis le poste matul cent mots c'est rien du tout mais le fait que ñu reprendre ko comme ça dugalaat ko ci ci site internet yi xëy na moo alerte les ñëwoon ah. ne vous oublieront jamais trois points de suspension limogé un officier général euh, de surcroît un haut commandant de la gendarmerie nationale sans mm. même qu'il ait eu l'occasion de faire ses adieux à ses hommes mm-hmm. et la pire des humiliations mm-hmm. le général Jean-Baptiste Tine a subi ce sort en étant limogé après les événements de mars 2021. Mmh. Il a, il l'a limogé avec effet immédiat et remplacé mmh. de, le même jour sans même avoir un, pu euh, procéder à une passation de service mmh. à mm-hmm. bon et due forme mm-hmm. avec son emplacement, avec son remplaçant. Mm-hmm. Et le général devrait partir à la retraite trois mois à peine. Loolu la moo mais Moustapha lu taxoon ñu tudd ci ay te connaissant te connaissant Pape Sané. Mm. absolument rien méchant dans ce qu'il fait. et d'ailleurs euh, am na sax ku koy tooñ démb rek maa ngi koy lire ci YouTube bi defe naa mu ne Pape Sané boo ko seetaanee Walf depuis quelque temps il fait très attention à ce qu'il dit du wax dara lu lu ba lu méchant. bañ doon bañ doon wax ne dafa dafa dafa ragal ak demee noonu. Mm-hmm. mais mais mais c'est parce que il a le sens de la responsabilité. man man ñi koy introduire pourtant ah man waxuma ko Idrissa dimbali ma de bu ma dugal de. E, exactement tout le temps te li ci doy waar mooy euh, soo xoolee le journal le quotidien bu ma Madiambal Diagne. Mm. bu le 4 novembre 2021 lii Pape Sané bind bind nañ ko. Mm. parce que le 4 novembre 2021 le journal le quotidien dañ ne euh, ce général de corps d'armée le général de corps d'armée Jean Baptistine qui n'a pas eu droit à des honneurs militaires au moment de partir à la retraite. c'est-à-dire li Pape wax ne il n'a pas eu de passation de service dans les bonnes et dues formes moom la journal bi traduit c'était le 4 novembre 2021 pour wax ne il n'a pas eu droit à des honneurs militaires au moment de partir à la retraite donc pour man euh, mhm. vraiment je man j'essaie de j'essaie de comprendre et je me dis quelque part su fekkoon ne le post Facebook la Pape Sané bind mhm. dañ ko bàyyi woon fa mu nekk rek mu ci page Facebook am xëy na du def tout ce trait là mhm. mais le fait que des sites internet reprendre ko euh, jox ko benn portée boo xam ne amu ko peut-être ça a pu jouer je dis peut-être je n'accuse personne je dis peut-être que ça a pu jouer moo tax ma yaakaar ne Euh, euh, euh, journalistes yi ñu doon ñun ay Aïcha war nañu gën a def attention bu baax sur le le traitement de l'information c'est vrai que réew mi dañu nekk ci réew moo xam ne tout le monde est journaliste quand tu parles des normes yi nga xam ne moom lañu édicté pour le traitement de l'information tu as même des des difficultés pour te faire comprendre parce que am na ñu bari ci ñun ñoo xam ne xamuñu sax li ngay wax mais mais dama ne un post Facebook boo xam ne dañ ko nit da koo bind ci sur sa page Facebook bu fekkee ne c'est ton c'est ton confrère en plus nga bëgg ko reprendre man je pense que l'élégance voudrait que tu l'appelles mhm. ne ko j'ai lu tel poste que tu as écrit je voulais mhm. reprendre ça est-ce que mën nga ma expliquer nangam ak nangam ak nangam bu fekkee ne il a des éclairages à faire par rapport à ce qu'il a écrit nga xam su fekkee ne il te dit tu peux reprendre comme tu veux tu reprends mhm. mais tu tu prends un poste de moins de cent caractères tu en fais tout un ci benn page Facebook wala ci Twitter c'est vrai c'est des sources d'information man je hmm. n'ai pas de problème avec ça mais l'information tant que tu as la possibilité d'aller au-delà de ce que tu lis comme ça au-delà de ce que tu vois comme ça il faut le faire et malheureusement on ne le fait plus mais Moustapha au-delà de tout sax euh, quand on hmm. parle de la véracité des faits mooy que lii lii xewoon hmm. loolu xewoon na général Jean-Baptiste Tine il a été limogé puis remplacé mmh. loolu aussi euh, ci époque yooyu noonu noonu noonu on peut écouter ces faits là donc pourquoi attendre jusqu'à cette heure là euh, di ko jàpp man je me euh, je me pose cette question est-ce que du un peu benn prétexte pour teg la main sur sur Pape Sané mhm. parce que Pape Sané l'avait dit nee na toogoon na réveil mhm. euh, moom ak Salma ñuy def seen chronique mhm. sécurité ñuy waxoon ci euh, euh, maanaam le fait d'arrêter les gens ba pare di jël seen téléphone mhm. mu ne les gens d'habitude bu fekkee dañ la bëgg incriminer ils von essayer de prendre benn chose ñu la jëlee buñ la xasee bañ la kittil téye sa téléphone c'est là où ils t'ajoutent des des des kii des charges léegi noonu tey est-ce que mënuñu koo xaar ci ci Pape Sané en fait moi je je sais pas parce que euh, euh, là au fi ma fi ma fi ma toog quand tu occupes quand tu occupes euh, un, certain niveau de responsabilité mm, mm, mm. mënuñu jàpp kenn ci yow ngay taxaw naan dañ doon wut prétexte pour nangam ak nangam ak nangam ce que je dire par là mooy j'essaie de juger les faits mm-hmm. yi nga xam ne moo nekk devant moi et ces faits là ces faits là mooy Pape Sané arrêté nañ ko démb di ko poursuivre pour diffusion de fausses nouvelles la fausse nouvelle dont on parle mhm. ñu ne ma c'est pas des propos qu'il a tenus sur Walf ou ailleurs mais c'est des choses qu'il a écrites euh, ci li nga xam ne mooy page Facebook am ces choses là nga xam ne man moom laa liir te sànq nga liir ko je dis que ni amu ci dara lu méchant. Mhm. amu ci dara lu jar arrêté nit ba di ko poursuivre te ñu ngi ñaan yàlla quand même. Mhm. bu xëy na bu demee devant le procureur mu bàyyi ko mu ñibbi këram. parce que on est à ce niveau là ba mhm. léegi. Euh, gisagu ko voilà gisagu ko au dernier nouvelle gisagu ko et ko que bu ko gisee mu bàyyi ko mu ñibbi ci këram. lool mooy loolu mooy le plus man pour man loolu mooy sama priorité c'est le plus important pour moi. incha allah maintenant beneen bi mooy gis nga Pape Sané. Aïcha ma xamal la tey mhm. que ni diggante bi Sénégal duggee ci cette tension politique là ñuy du depuis mars deux mille vingt et ba léegi amul benn journaliste boo xam ne inquiété nañ la fii ci Sénégal te Pape Sané ñëwul taxaw benn journaliste la boo xam ne inquiété nañ la fii ci Sénégal te Pape Sané ñëwul taxaw am na ci yoo xam ne surtout des journalistes de Walf man moom laay woo ne ko jugal mu jóg ñu ànd mhm. kuñ xam seeti la mhm. kuñ mën a woo téléphone woo la pour di éviter journalistes yi ñuy leen di poursuivre ci loo xam ne jaru ko. Mhm. je trahis pas mais am na ci jour boo xam ne Pape suba teel laa ko woo. Mhm. foo nekk mu ne ma maa ngi sama lal jugaguma yaa ma yee ma ne ko jugal. xam naa ci dara diw. Mhm. ñu ngi koy inquiété te bu ñu gaawul dara nga mën na ko fekk. mu ne ma fan la ma ne commissariat sàngam mu ne ma naa la fa jiitu te effectivement mu ma fa jiitu. guddi woo naa ko fii ne ko Pape mu ne ma mu ne ko foo nekk mu ne maa nga Bel heure ndogu la woon heure mm. ndogu maa nga belleer ma ne ko boo gaawul ay am mu ne ma lu ah. xew ma ne ko diw jàpp nañ ko mm-hmm. te ni niñ ma waxee situation am man na grave mu ne ma nañ daje béréb sàngam ñu daje man ak moom kuñ xam woo ñu xam seeti lool kooku mooy Pape Sané quand on a arrêté Pape Alé ñi fa daan jiitu la daan bokk mm. euh, euh, Serigne Saliou Gueye la même chose Cheikh Bara Ndiaye la même chose Pape Ndiaye la même chose Thioro Mokhoumane la la même chose keneen ak keneen Pape Pape Sané il est boole ceeb. boo amee sa problème personnel. exactement <laughs> man ah, mi képp fii muy wal fajiri muy feneen képp ku ma woo ne ma dama am un problème sàngam jëm ci wàllu alkaati ci wàllu gendarmerie <laughs> ci wàllu magistrat ak ku ma ci doon <laughs> dama naan la may ma tuuti ma woo Pape Sané. je l' appelle je lui demande il me dit nii ak nii ak nii lañ mën a def ma ne ko baax c' est c' est mooy Pape moo tax man démb au delà du fait que. sama responsabilité la mais bi ma déggee ñu ne dañ ko convoqué dama ne moom kooku moom mënu ma ko toogaale sama bureau mhm. mën naa fa dem mais li ma li ma li ma doon wax sànq mooy bi ma demee foofu mhm. mën naa na limal ñu fa nekkoon bu gaaw Cheikh Niass mhm. Seyni Diop Abdallah Niass fay Ahmadou Fati Faye Moustapha Diop euh, comment il s'appelle euh, Mame ak ñaari chauffeur Abel ak euh, Ousmane muy huit personnes. Mhm. Aïcha loo seetlu ci huit personnes yooyu ma la cité ñoom ñëpp fu ñu jógee. Walf Walfadjri c'est des de Walf amul kenn kenn kenn benn journaliste sénégalais boo xam ne Synpics nga bokk wala feneen nga bokk wala feneen boo xam ne te kenn du la ma dégg ñu ne démb Pape Sané convoqué nañ ko. Mhm. amul ci kenn koo xam ne jaral na la nga déplacé wu ñëw taxaw section de recherche ne serait que pour ñëw dire qu'est-ce qui se la. Mhm. c'est leur confrère moo tax tey ci suba am na ku ko bind dans le groupe bi nga xam ne man bokk naa ci muy le groupe bi nga xam ne journaliste yu bari moo ci bokk collectif euh, Free Press nga xam ne ñu ko créé woon bi ñu jàppee Pape Alé Niang ci suba gis naa ñu ko bind mhm. mais comment se fait-il que ñu convoqué Pape Sané tée ko gendarmerie ba le lendemain amul aucune réaction de la presse man ba fi may doog déggaguma ko mm. déggaguma ko c'est-à-dire que affaire dañ ko jël mu nekk affaire waawal fajir ñu nekk nañ ko gérer seen bopp te loolu nag Walf mi ngi koy bëgg a miin léegi ñu ngi koy bëgg a taamu Walf ngi bëgg a miin à chaque fois bu ñu inquiété kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo tudde seen bopp les organisations mm. professionnelles de la presse mën naa cee lim ñu bëree bëri dañuy xaar yow nga dem ne leen vers ñoom euh, te pourtant Pape Sané mii ñuy waxtaane mm. amu ci kenn koo xam ne mas nañ ko inquiété dans la presse sénégalaise te moom jógul spontanément dem taxaw fa man xam naa dara parce que lu muy def souvent daf may woo ñu wax ci effectivement amu ci les gens ont préféré te bu may toog bu may toog nii je regarde euh, le groupe bi nga xam ne waa SYNPICS ñi ngi ci des membres de la convention des jeunes reporters ñi ngi ci ak yeneen responsable presse bi ñi ngi ci groupe bi groupe WhatsApp gisuma ci benn réaction de quelqu'un qui dit il faut que il faut que la presse se mobilise Aïcha mhm. si su fekkee ne journalistes yi noonu lañ bëgg a jàppe seen ay relation mhm. dinañ leen jàpp di leen écraser ba ñu jeex te kenn du ci mën dara li gënoon a yomb waxoon wax naa ko et je l'ai dit mm. euh, ci livre bi ma génne euh, il y a quelques que ni man je me souviendrai toujours bi ñu jàppee waa sud keroog kenn toogul naan man journaliste la damay xaar ñu ñu ne ma ñëwal ñëpp a demandoo ah te section de recherche bi nga xam ne man fa laa dem démb c'est des gens yoo xam ne ku fa mënti ñëw dañ lay bàyyi nga dugg mm-hmm. gendarme yi dañuy vérifier ba xam yoroo dara laaj la sa pièce nga joxe leen ku ñu ne la fan mooy section ñu ne la fële mhm. nga àgg dem taxaw loolu boo fa ñëwee taxaw ñun ñuy fa dem taxaw dem ba gis Pape Sané nuyoo ak moom waxtaan ak moom waxtaan ak gendarme yoo fa nekk di tooñanteeg ñoom et tout ñun mhm. suñu suñu waxtaan boobu ak suñu taxaw boobu du moo fay jëlee Pape Sané mhm. mais au moins au moins dina tax mu am réconfort ne man de famille bi ma bokk muy la famille de la presse sénégalaise ils sont venus ñoom ñëpp spontanément pour wan ma ne ci ñoom laa bokk. tout à fait mais ba fi may waxee yow nii sànq maa ngi laaj Assane Gueye moom demoon na section de de de recherche. Mm-hmm. mais c'est c'est ça la man pour man. problème bi gën a guetté la presse sénégalaise fii ñu toll nii. Mhm. man nekkul ci ay ñu naan journaliste bi fii la farak journaliste bi kii lay défendre rek man pour man yooyu amul benn solo. parce que mhm. ñi koy wax amuñu mhm. benn xam-xam ci li journaliste yi liggéey. mais li ma inquiété man mooy ce manque de solidarité. Euh, ce ni ñu koy waxee sax cette indifférence bi nga xam ne moom moo dal ci presse bi tey ba mën nañoo jàpp kenn ci ñoom ku ci nekk toog sa bureau tu fais ton travail comme si ça ne t'intéressait pas. or ñu ngi wax Pape Sané groupe Walfadjri la ñu singali depuis deux mille vingt et un mais <laughs> mën na daal ku nekk ci ñun. ku nekk ci ñun. Mhm. te ku sañoon ci ñun buñ la buñ la woowee nga gis la presse mobilisée wu ñëw taxaw. Mhm. du ñoom ñooy dem ne alkaati yi par force di ngeen ko bàyyi jox leen ñu ko ñu yóbbu ko non non non mais au moins cette mobilisation là ñu xam ne y une famille qu'on mais bon cette famille de la presse sénégalaise aussi. <laughs> Euh, peut-être man je pour continuer na ñoo xam ne oui bëgguma nekk difficité ay non naan diw ak diw am na ñoo xam ne à chaque ak que Walfadjri am lu dal ci ñoom ñoom toppatoo wuñ ba xam Walfadjri la ñuy liggéey ou pas am na ci ñoo xam ne des gens qui travaillent mm. mais à chaque fois que Walfadjri masa woote fii dañuy ñëw taxaw comme ñëpp taxaw comme des membres de la mm. presse sénégalaise mm. tout court mais malheureusement ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp les organisations yi taxawal presse sénégalaise bi man aw ma benn leçon bu ma leen jox mm-hmm. parce que bañ leen élire fekke ma ko mm-hmm. euh, xaw ma dans quel critère quel critère la gars tànn pour yooyu mais man dama jàpp ne gën na mën nañ gën a taxaw taxawaay ku mel ne le président de la convention des jeunes reporters Migui Marème Ndiaye mm. man je le regarde je vois ses interventions je lis les communiqués yi muy def mais man dama naan sama sama fierté la. Mhm. man mi nga xam ne bokk naa ci ñi créer la convention des jeunes reporters. que cette convention des jeunes mhm. reporters la mhm. nekk tey ci loxo ku mel ni mi ngi Marème Ndiaye pourquoi parce que au moins au moins su déggee mu ne. su déggee ñu ne journaliste am na lu ko naqari. au moins il fait un texte. pour wax lan moo ci position pour dénoncer bi ci mujj mooy keroog bi journaliste duggee ci gaal googu <laughs> ba nar a man moom laa lire. mu wax comment ça s' est les journalistes leen bu ñuy defee noonu man

yéen mag ñi mais Aïcha loolu parce que ñun entre nous jeunes reporters xaw ma lan la mais on est comme ça li dal par exemple groupe Walfadjri ñun entre jeunes reporters on s'appelle Aïcha loolu loolu léegi la xew man di yéen jaaxal ngeen magu presse bi man bu may nekk <laughs> convention des jeunes reporters Mouhamed Aboubila Fall moo nekkoon président bi hmm. Ibrahima Lissa Faye mii quand je le vois il se bat tout le temps d'ailleurs ci suba c'est lui qui m'a interpellé dans le groupe euh, de, la presse ne ma il faut que tu nous dises euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Pape et je leur ai expliqué ce qui s'est passé comme ni ma ko expliqué fii mhm. léegi nag de mais mais Lissa boo ko gisee muy am ces positions là mais parce que Lissa lii muy def nii ci convention des jeunes reporters la ko jàngee. on a fait on a créé la convention des jeunes reporters ensemble te ñun ñëpp moo ci li may wax Pape Alé tout le temps naan ko parmi nous tous tu le plus courageux mais je dis souvent que ni ñun ñi créé woon convention des jeunes reporters yëpp lii sa moo ci gën a nekk un combattant. Mm-hmm. moo ci gën a nekk un combattant du suñu morom. et loolu loolu ko loolu ba léegi nekkatul ci jeunes reporters <laughs> réflexe réflexe yi mu amoon bi mu nekkee reporter moom la am ba léegi heure bu ñu inquiété un journaliste day génn mu taxaw moom Ibrahima Lissa Faye mhm. mais loolu c'est parce que la convention des jeunes reporters moo ko jàngal parce que noonu la noonu lañ ko mooñaalee en fait mhm. bi mu nekk jeune reporter et ñoom Migui Marème ñi man je suis convaincu que d'ici quelques années Migui Marème ou keneen ils seront à la tête du du Synpics ils vont avoir les mêmes réflexes mhm. ak euh, Diatou Cissé Koulibaly mi ko remplacé woon bi ñu nekkee euh, ci bopp ko euh, nu ñu koy waxee sax Synpics mais mais c' comme ça. Mhm. Alpha Sall bu ñu daan woo benn journaliste da ngay jekki jékki rek gis ko mu gàddu saagam waaxu ñëw taxaw. su ñëwee jeune yem jeune reporter yem fa fekk lay nuyu laaj leen qu' est ce qui se passe ñu ne ko ah SG fi kii de dañ koo woo parce que nangam ak nangam mais mu commencé dugg wàcc dugg wàcc dugg wàcc dugg wàcc les gens man je suis convaincu d' une les responsables de la presse sénégalaise. ñi ngi ñi ngi dox di dem di ñëw mm-hmm. ñi ngi wax ak autorité yi ñu xam comme man ni ma koy defee comme ni ko Pape doon defee d'ailleurs mm-hmm. mais dama ne loolu baax na c'est très bien mais dafa doon baax journalistes yi bu seen bët xonqee bu mm-hmm. ñu tourné gis seen ay mbokk taxaw ah c'est tout alors Moustapha euh, pour peut-être clore di ñaan yàlla rek euh, comme tu laa di tantôt Pape Sané génn ci situation yi mu nekk mhm. et que bu gisantee procureur mu nekk fa avis favorable ci wallaay mu ñibbi këram parce que loolu rek la ñuy xaar ci moment ah. mhm. euh, incha allah rabbi alors Moustapha kon ñu wax ci beneen actualité parce que temps bi xoj nañu baax a baax mais il fallait que ñu jox temps bi mhm. euh, situation bi parce que kenn la ci ñun koo xam ne Pape Sané comme Moustapha l'a dit tantôt ku yàgg sonn la également ci bu ñu nekkee ci yu mel nii mel ni ay jàpp ak yi mel Moustapha tey ñuy waxaat encore ci situation wu Ousmane Sonko. Mhm. c'est vrai que le 17 novembre bi également nekk na bés bu euh, euh, décisif encore ci ci dundam. par mhm. rapport ak li ñuy xaar. il y a tellement de jour décisifs ci dundu Ousmane Sonko que finalement. <laughs> tout est <laughs> décisif mais tey jii en tout cas gis nañ benn information boo xam ne dab nañu léegi léegi. Mhm. mooy que ni Ousmane Sonko dañ koy transféré ci Cap Manuel bu fekkee transféré wuñ ko ba noppi sax. lan la ñu mën a retenir ci information bi est li ci mën a retenir mooy Aïcha li nga wax sànq bi ngay commencé et important pour man ci jamono yu ñu toll. mooy la nouvelle la plus importante. mooy buñ ne Ousmane Sonko jëlee nañ ko l'hôpital ñu ngi ko yóbbu Cap Manuel tout de li sa xel di dem mooy sa santé amélioré wu na. loolu mënoo ci bañ a réjouir parce que doomu aadama encore une fois nit la koo xam ne dafa am famille am ay mbokk am njaboot et tout njabootam yooyu. Euh, combat politique yi ñuy wax yëpp usman sonk dina nekk candidat du nekk candidat Ndiop njabootam ñoom leen gën a intéressé jamono ñi ñu toll. mooy di dégg ñu naan ne Ousmane Sonko et en bonne santé. Mm. c'est le plus important. parce que Ousmane Sonko du Ousmane Sonko wu njabootam kese mais yaakaar naa ne avant kenn di ci wax njabootam ñoo ci ëppale muy benn. donc le fait que euh, qu'il soit déjà euh, ñu ne il est déjà comment est-ce qu'on dit là euh, yóbbu nañ ko Cap Manuel sa veut dire que au moins nekkatul en réanimation parce que ku nekk en réanimation doo dem Cap Manuel mhm. donc je considère que ça c'est c'est déjà une une bonne nouvelle je considère beneen bi mooy bu ñu la waxee ne la yóbbu nañ ko Cap Manuel am na ku ma gis mu bind ko sànq et je pense qu'il a raison mooy tey jii nii lan ngay jàng mooy euh, comment est-ce qu'on dit Sonko mooy le président du parti bi nga xam ne ñu bëri te man ci laa bokk jàpp nañ ne moo ëpp doole ci ci ci parti d'opposition yi. Mhm. <laughs> en tout cas les faits loolu la wane. Mhm. tey jii prison ba mu nekk le secrétaire général de son parti la fay fekk. muy Bassirou Diomaye muy Bassirou loolu ci ci ci démocratie image bu doy waar la. Mhm. cest à doo comprendre comment est naa qu'on en est à sa mais encore une fois li ma wax sànq loolu lay réitéré mooy le fait que ñu dégg ne Ousmane Sonko transféré nañ ko yóbbu ko feneen mhm. ça veut dire ni santé am amélioré wu na mhm. li ma ci xaw a inquiété nag mooy loo xam ne le député Cheikh Thioro Mbacké moo ko bind mooy dafa wax ne bu ñu koy transféré avertiruñ son médecin mm. avertiruñ son médecin loolu Cheikh Thioro Mbacké gis naa bind ko et je me dis quelque part yu mel nii Euh, puisque moom am na un médecin personnel boo xam ne moom moo koy suivre di ko traiter c'est bien que ce médecin là xam dans quel état il est et puis dans quelles conditions il a été transféré mais mm. quoi qu'il en soit mm-hmm. le et que Ousmane Sonko je crois que il avait waxoon nañ ci fii man ak yow il mm. avait demandé à transféré à Sébikotane nañ ko delloo ci ba mu nekkoon donc le fait que ñu dellu ñu yóbbu ko Cap Manuel c'est déjà euh, pour man une bonne nouvelle kii bi nga xam ne moom la Ousmane ko nekk di mëne daf ci am loo xam ne dafa am solo lool mu war a xew le 17 courant cour suprême mhm. mooy cour suprême lu simple la pour ñu ñuy déglu ñu seetaan euh, pour bañ a wax ay euh, technico euh, ñooñu jàng droit day compliqué ñoom mooy cour suprême dafa war a xool ba xam décision bi nga xam ne moom la juge Sabassi si si Faye daan naa ko woowe saw léegi ma koy wax si Sabassi Faye <laughs> da jël fële ca ca Ziguinchor mm. cour suprême dafa war a xool ba da koy kase wala déet su fekkee ne daf ko confirmer daf ko su fekkee daf ko confirmer le 17 ça voudra dire que ni direction générale des élections mmh. ministère de l'intérieur état wu Sénégal amatuñ benn lay pour bañ a jox Ousmane Sonko des fiches de parrainage mhm. amatuñ benn lay su fekkee ne daf ko kase maanaam cour suprême ne décision ba baaxul foofu dina am problème parce que li am problème mooy dina rare une décision de justice comme ça ak li ñu fi gis yépp xew fi cour suprême kase ko du ma ne mësul du ma ne amul mais dina raar dina raar leen maintenant beneen beneen beneen beneen affaire day day day day day taxaw mooy su cour suprême euh, waxee ne si fay la mu jugé amul dara lu ñu ci wax maanaam confirmation il va falloir no seulement joxe Ousmane Sonko de fiches de parrainage mais dañuy dugg ci beneen beneen beneen séquence. Mm-hmm. séquence su lan mooy Ousmane sonk day bokk mu ngi nekk sur la ligne de départ. Mm-hmm. te Ousmane Sonko waxoon naa ko fii Aïcha dinaa ko fi waxaat mu nekk sur la ligne de départ pour les élections présidentielles à venir dafay changer complètement la donne mmh. une élection présidentielle ci jamono ji ñu toll au Sénégal avec Ousmane Sonko mënul bokk mukk à une élection présidentielle ci jamono yi ñuy sol sans Ousmane Sonko il faut qu'on arrête de rêver c'est pas la même chose mmh. s'il sur la ligne de départ il euh, ça va changer beaucoup de beaucoup choses. maintenant euh, Mame Biram doon na ko wax lu bari je pense qu'il a raison mooy dama jàpp ne état wu senegal dans leur stratégie. Mm. dafa am fu ñu juume. ci fan fu ñu juume mooy bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko dem euh, mandataire Ousmane Sonko tudd Mouhamed Ayib Daffé mu demoon euh, DG. DGE e jox ko des fiches de parrainage comme ni mu ko joxe Dame Mbodj joxe ko Dianté joxe ko Amadou Ba. Mm. joxe ko euh, Ansoumana Maane Dione joxe ko Anta Babacar Ngom joxe ko ñeneen ak ñeneen ak bu ñu demoon rek ci loo boobu joxaale ko ci Ousmane Sonko mu dem defi. Euh, euh, ces campagne pour les parrainages ñu ñu parrainé ko mu jël candidature am déposé ko conseil constitutionnel euh, booba su boobaa juge si Faye mais nekk ca Ziguinchor du ci dugg. Mhm. du ci dugg. parce que bul fàttali c' est. dañ ko refusé <laughs> loolu. moo tax <laughs> moo tax ñu refusé li ko refusé fiche yooyu. Hmm. moo tax ces avocats dem saisir juge ba ne comme dañ ko refusé parce nee nañ nekkul ci liste bi juge bi dañuy saisir pour mu wax lan moo tax nekkul ci liste yi et bu ko bu fekkee dañ ko tooñ ñu delloo ko ci liste yi. Hmm. mais su fekkoon loolu lépp waxuñu ko defuñu ko. bàyyi rek ñu dem conseil bu ñu nee ba ñu ci pàndaw conseil constitutionnel <laughs> parrainage baax na lii baax na lii baax na lii baax na mais malheureusement wala boog <laughs> je sais pas heureusement pour le pouvoir nekku leen ci liste donc du ngeen mën a nekk candidat su boobaa duñ mën a am sax la temps matériel même le Pastef su boobaa man yaakaar naa ne dina jël un coup boo xam ne duñ mën a am sax le temps matériel pour sa réorganiser pour sa baat pour xool ba xam nan la ñuy def pour bokk ci élection yi mhm. mais le fait de avoir refusé moo tax nga am léegi Guy Marius Sagna sur la liste. un crime n'est jamais am am am euh, Bassirou Diomaye fay sur la liste. Mm. am El Malick Ndiaye sur la liste. am kanati euh, am am Dame Mbodj ak keneen ak keneen am na ñoo xam sax xëy na xaw ma leen te ñu ngi ci ñu ngi ci parrainage bi. Euh, voilà donc am tous ces gens là sur la liste. ba pare am un problème saa ba si fay boo war a régler parce que la Cour suprême ci loolu la war a prononcé wu. Mm. alors donc man pour man euh, erreur la dans la stratégie de l'État du Sénégal mais comme tu dis euh, y a des y a yoo xam ne munoo ko prévoir. je dirais pas que un homme un crime n'est jamais parfait. Mm-hmm. mais yàlla suñu borom Aïcha. c'est-à-dire da ngay teg di teg di teg benn puzzle ba yaakaar ne c'est parfait c'est infaillible yàlla dugal ci loo xam doo ci mën dara euh, moo tax Njaga Mbay doon wax ne <laughs> yàlla baax ci pootum buur da weer ba mu wow mu taw mu taw ci kaw <laughs> mais mais Moustapha beneen hmm. tamit information euh, mënuñu ko occulter comme ça mooy cour suprême bi nga xam ne nii euh, peut-être nangulul sàkkuteefu avocat yi Ousmane Sonko yu doon wax ne duñu nangu hmm. juge Abdoulaye Ndiaye daal di atte atte mbir mi hmm. xam nga d'ailleurs j'en profite Aïcha parce magistra magistrat la woon léegi mi ngi ci retraite mm-hmm. dama koy tudd lu bari ci sama ay waxtaan parce que dama wax souvent ne man su ma xamee lu bari ci histoire politique gu Sénégal moom laa liir liir Mamadou Dia liir euh, ku mel ne Abdoulaye Bathily liir Abdou juuf mm-hmm. mais moom particulièrement dama liir naa ko au moins quatre ou cinq fois son livre muy le magistrat Ousmane Camara Ousmane Camara moo nekkoon procureur général bi ñuy àtte Mamadou Dia dama toog samedi mu mu mu def lu extraordinaire cest à dafay yónni ay jarbaatam. Mm. ne leen fu ma nekk man nañ ma wër ba gis ma jël sama numéro téléphone indil ko. góor gi màgget na léegi war naa am ay juróom-ñetti fukki atam war naa romb parce que nee naa la bi ñuy àtte Mamadou Dia moo nekkoon procureur général. ma toog ay jarbaatam woo ma wax ma ko ne ma ah paa bi de nee na na am na ci ko xam dafa ñëw wool fajir d'ailleurs fekk fii Abdoulaye Bob ak maamu jaabi sama ñoom ñoo ko jox sama numéro mhm. am koo xam ne comme wal fajiri la nekkoon muy madame ba maa ngi koy nuyu bu baax nawel doomu Ayane Thiam moom coow moom woo ne ma paa bi sama xaritu la woon te nee na il faut mu am sa numéro ma ne jox leen ñu jox ko ma ne leen man mën woo ñu ne mukk ko woo moom nee na moom moo lay woo ay sa paa bi woo ma wax ma wax mu wax yu yu yu daywaar yu yu yu daw sama yaram mm. ne ma man euh, sa maam laa mën a nekk mais su ma dundoon ba wuy ji sama ba wuy ji sama borom yàlla na yeex yàlla na dund ba ci kanam a kanam te woowuma la yow Moustapha Diop gërëm la su ma àggee yàlla dina ma ko laaj parce que li ngay wax ci man lépp ci lu ci lu rafet euh, te xamoo mu mosoo maa gis c'est mhm. extraordinaire ma ne ko nag lenn rek moo tax ma koy wax mooy dama liir téere boo bind mhm. te téere boobu li nga ci bind marqué ma lool su may wax damay damay bëgg di ko delloo fenn fi mhm. moo tax ma koy delloo fi nga xam ne falaa ko liire moo tax yenn may wax ne Abdou Diouf moo bind nangam Mamadou Dia moo bindu nangam euh, usman Camara moo bind nangam euh, parce que je préfère citer ñooñu ñi nga xam ne ay sénégalais lañ. Mhm. nekk ci réew mi am nañu rek plutôt que naan. ay Molière euh, ay Molière rek Descartes. <laughs> ba may def ba may def lettre moderne ma ñëw joxe benn livre quoi Gustave Flaubert moo ko bind l'éducation sentimentale xaw ma. ni ko maam Biram doon waxee ay faatu ay nuroob ma ne lii daf may tardeel ay ne fii di liir ay tubaab bu naan la bato ba départ naag affaire yooyu voilà mais mais pour ñëwaat ci ci li nga wax. Mhm. Cour suprême boobu ngay tudd ay Aïcha. wax nga sànq ne les avocats d'Ousmane Sonko dañu récuser woon benn magistrat bu tudd Abdoulaye Ndiaye mais cour suprême daf ko débouté de débouté maanaam Abdoulaye Ndiaye boobu dina bokk ci àtte bi mais xam nga dafa am benn affaire boo xam ne dama ko jàng ci Sénégal depuis quelque temps et le juge Sabassy dëggal na ko keroog mooy man du ma mukk ci du ne la justice ci les magistrats sénégalais Aïcha daf ci am ñoo xam ne ci bërëb ba ñu toog mhm. yàlla rek moo tax moo tax ñuy àtte et et ils peuvent nous surprendre mhm. ces dans du temps de Diouf da nga fa gis des magistrats yu daan jël des décisions yoo xam ne daawul arrange mukk le pouvoir de Diouf. Mhm. gis nga defe naa Abdou Latif Coulibaly moo ko nettali wala def ko bind gis nga le juge Cheikh Tidiane Coulibaly laa. Mhm. nga xam ne moom lañ nommé conseil constitutionnel bu yàggul. est xam nga ne yoroon na dossier Ablaye Wade xam nga loolu Cheikh Tidiane Coulibaly mii. Mm. yoroon na dossier Ablaye Wade si defe naa ci l'affaire maître Sèye la woon à l'époque man defe naa dama ko liir ci Latif wala Latif daf ko nettali parce que comme Latif jàngal na ma am na yoo xam ne dana ko daan nettali en cours xëy na euh, du ma xamante fan laa ko jëlee mhm. mais à l'époque Latif mas nañu nettali mu ne Abdoulaye Wade mas na wax ne moom comme Cheikh Tidiane Koulibaly moo yor dossier am mhm. lenn moom leer na ko bis bu Cheikh Tidiane Koulibaly amee conviction que ne Abdoulaye Wade li ñu koy taqal taqe na ci dina ko tëj mais bis bu amee benn doute taqewu ci dina ko bàyyi mhm. et qu'est-ce qui s'est passé mooy Abdoulaye Wade après dañ ko bàyyi mu dem yoonam donc du ma ne du ma boole mukk les magistrats sénégalais jël def ci benn paan rek ne nañ nañ sànni non non am na ci ñoo xam ne et jàpp naan ñoo ci ëpp a certains moments il peut prendre des décisions yoo xam ne day surprendre moo tax man du ma toog fii mukk naan jërul ngeen jërul rêve la cour suprême va casser la décision bi Sabassy Faye jëloon ak déet du ma ko def damay toog ba ba ñu àtte comme tu dis tout peut gis nga keroog bi Sabassy Faye waree àtte ca ca yàlla xam na ne tur boobu jour boobu laa ko njëkk a dégg. xaw ma kuy moom mosuma koo gis ba léegi nii xanaa li mooy gis image am. mais mm. je le mm-hmm. mais dama déglu l' agent judiciaire de l' état mu wax ba pare ma toog fii ci keppaar gi. Mm-hmm. ma ne man li ma gis di ko dégg nii agent judiciaire de l' état di ko wax mooy état wu Sénégal procès bee ca Ziguinchor da koy perte. bi ma génnee am benn. góor gu mag parce que man yàllaa ma dimbal nag man paa yeeg maire yi comme tu dis yaa defe naa yaa ma ko doon tooñe dañ ma bëgg. Eh. benn góor gu mag woo ma ne ma man retraité laa mais saaba si fay moom ngay wax xamoo ko man dama koo xam bu baax mu ne ma naa la xamal leen bis bu amee njort que ni Ousmane Sonko moo ne ci dëgg kenn mënul tee ma jox ko dëgg mais bis bu amee njort soo ko nekkul ci dëgg. kenn mënul tee kenn mënul tax mu jox ko dëgg mhm. te effectivement c'est exactement ce qui s'est passé am na conviction que ne Ousmane Sonko moo ni dëgg mu jox ko dëgg donc de la même manière man je connais pas les juges yu nekk Cour suprême vraiment xaw leen mhm. mais dama ne man na cee am ñoo xam ne le mhm. set bu ñu jàppee ne Ousmane Sonko mii moo na ci dëgg dañ koy jox dëgg et pourquoi ñu war a jàpp ne moo ni dëgg Aïcha cette affaire là même boo jàngul droit même bu say at bariwul gis nga li ci xew yëpp liir nga lépp li ñëpp d'accord ñi jàng droit di ko wax ci réew mi mooy taxaw fii tey à cet instant précis ñu taxaw nii ne Ousmane Sonko mënul nekk candidat lu jafee la yàlla. lu jafee la yàlla. alors que dañu wax ne que à moins sax six mois sax waruñoo dara lu tukki ci. Euh, amiin code euh, électoral mieux que amul benn condamnation définitive. ci biir Ousmane Sonko définitive boo nañ ci ndordam. ba léegi amul. amul même l' affaire l' affaire Mame Mbaye la ça tombe bien d' ailleurs Mame ak euh, journaliste yooyu ñu jàpp yóbbu ndax ay mbir yu ñu ko taxal yu ko tuddal mais l'affaire la ba léegi fi ñu mu neex ñu mu naqari ñu ça va marquer l'histoire politique du Sénégal parce que enjeu bi mooy xool ba xam le principal opposant au pouvoir de Macky Sall dina bokk ci élection wala déet en tout cas c'est une date boo nga xamante nii ñu ngi koy partagé bu baax a baax ma mm-hmm. nag lan lañ ci mbëbët mais daal parce que euh, xam nañ enjeu yi ils ont les gens oui, les, la sénégalaise euh, comprend très bien les enjeux voilà. alors Moustapha au-delà xam naa ne li ñu des si waxtu bëreetul sax. bu mettee mhm. cinq ci la yem rek mais peut-être il faut ñu ñu def ko ci ñampas ko ci parce que week-end bi également. Mhm. gis nañu ay déclaration ñoo xam ne nii dañoo jógee bokkes ci coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar notamment bokk biir parti APR. Mhm. ku ci mel ni Souleymane Jules Diop. jóge ba tugal ñëw Sénégal gi def ay ay ay déclaration déclaration bi tënk na ko quand même ci ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba mhm. euh, lam ca wax dégg nga ko mhm. jaruñu koy répété waat mais peut-être mhm. sa appréciation lañ ci xaar mais doyut même Abdoulaye Bibi Baldé aussi il a parlé euh, de la même situation ci ki nga xam ne noonu la gisee candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar qu'est-ce qui se passe avec Amadou Ba il peine à convaincre wala moom moo mais est-ce que Amadou Ba Amadou Ba bëgg na convaincre c'est question que je me pose ah. mais Aïcha dafa am lu wolof di wax dafa ne naar bu ndaw lu mu wax ci xayma ba la ko dégg yow naar nga dégg <laughs> gis nga Souleymane Jules Diop loolu muy wax loolu. <laughs> man ngaa jàpp ne waxu Souleymane Jules Diop la. Mm. mais il faut liir Ibrahima Anne bu Walf Quotidien li mu ci bind tey je conseille aux journalistes euh, enfin ñu bëgg a liir lire Walf Quotidien Ibrahima Anne bind na ci tey mais da jàpp ne li mu wax noonu moom Souleymane Jules Diop ak Abdoulaye Bibi Baldé mbir la moo xam ne. waa APR ñoo koy waxtaane ñoom ñu génne ko wax ko ci kaw ah ñoom ñoo koy waxtaane seen biir li ñu waxtaane mooy lan mooy Amadou bi Amadou Ba mii matulul seen njiit wóoluwuñ ko mhm. et wóoluwuñ ko dañ koy tekki lu simple mooy Amadou Ba ne fait rien pour s'affaire pour s'affirmer Aïcha élection présidentielle dañu wax ne c'est la rencontre entre un homme et son peuple sénégalais li ñuy fal mooy li américains yi di woowee commandant en chef mhm. koo xam ne mooy le le chef le patron. mais Amadou oui Amadou Ba mënul pour man fi mu ne nii mënul continuer di nekk derrière Macky Sall. te li ko doon may mooy mu démissionné woon de son poste de premier ministre. Hmm. dem affirmé wu jiite les troupes ne leen ay yoon ñu dem wuti. mais fi mu nekk nii handicap bi muy traîné mooy Macky Sall ci boobu doy na handicap parce que qu'on le dise ou pas Macky Sall est un président impopulaire. tey jii nii yàbb tey gis Aïcha nañ wax leer rek. Hmm. gis nga. l'avantage bi nga xam ne moom la Amadou Ba am mooy c'est le candidat de parti, parti au pouvoir mhm. te parti au pouvoir boo xam nga lu tax candidature am di am avantage tuuti mooy dafa am ñoo xam ne dañ lay xàllal d'abord mhm. mais dafa am ñoo xam ne makis nguuru Macky Sall continuer seen teraanga ci la nekk ñooñu am ay njaboot ñooñu am ay mbokk am ñu leen yaakaar ñooñu quel que soit ce qui va se passer ñoom ils vont voter pour Amadou Ba parce que système bi continuer loolu moo leen neex am ay mm-hmm. mm-hmm. moo leen neex mm-hmm. gis nga euh, euh, kii mii lu mu tudd euh, comment il s'appelle Abdou Aziz Diop Abdou Aziz Diop mii bokkoon APR te naan Macky Sall ci ay pexe rek la nekk man daf ma doon jàngal mu wax ñu benn jour affaire bu am solo dafa ne élection présidentielle mu ne parfois da ngay toog nga nekk sa kër surtout les grands patrons la ils sont parfois minoritaires ci seen kër te xamuñu ko parce que da ngay nekk sa kër yow ak sa jabar mm-hmm. ak seen ñaari doom doomi ay mineur lañ mënuñoo voté donc yéen ñaar rek yéenay voté ñi xaj bi du voté mais ci kër gi am nga fa ñaari bonne mm-hmm. am fa ñaari gardien mm-hmm. am fa benn planton am fa benn jardinier ñooñu ak chauffeur ñooñu ñoo la majoritaire ci kër gi te ñooñu boo defu ndànk yow miy xeex naan na fi Ablaye Wade jógee ñoo Ablaye Wade la ñuy voté boobu Abdoulaye Wade moo nekkoon ci rek moo mm-hmm. nekkoon président. Mm-hmm. donc yooyu dañ koy sóoraale bu fekkee seen un candidat sortant léegi Amadou Ba problème bi mu am mooy le candidat sortant qu'il est l'électorat de Benno mm-hmm. daf koy séddoo. à moins que ñu invalider Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne à moins que ñu invalider leen ak Mame Boye Diao mais ñooñu bu ñu maintenir seen candidature seen électorat ay fu muy jóge Boun Abdallah Dionne ah. euh, ali Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao élect seen électorat f muy jóge

mais loolu mënatu ko am parce que da koy séddoo léegi bu ci boolee ñi bokk ci kawam di ko attaque far. di ko attaqué naan dafa nooy parce que amor pour ñuy seedaat mooy dafa nooy dëgg comme ni mbëri di wax dëggal sa bopp. Mhm. Siteu laa gis mu koy wax keroog. et j'aime bien ça Siteu mu ne da ngay dëggal sa bopp ñëw taxaw. Mhm. ne man la amul ba il peine à dire. man la dëggal boppam ñëw taxaw ne je suis le candidat. Mhm. peut-être que c'est son choix man xaw ma ci dara. peut-être c'est son choix mais dama ne choix boobu su ko continuer hmm. ak sortie bii Souleymane Jules Diop def ak Bibi Baldé ça va lui coûter très cher parce que il ne rassure pas son camp te puisque son camp nekkul benn unité bu bu bu homogène su leen rassuré day am problème te nag mu neex la mu naqari la la coalition Benno contrairement ak bi Macky Sall nekkee candidat nga xam ne c'était un navire bien géré par Macky mm. mais tey ji la coalition Benno comme ni ko Colin Powell doon waxee c'est pas un navire euh, particulièrement apte à prendre la mer su ci amul un commandant en chef bu dëgër dëgër dëgër mm-hmm. li dalal journaliste ñoo leen dalan mooy toog ñoom ñëpp ci gaal gi yaakaar na dinañ yegg fa mu jëm jékki-jékki gaal gi ne këlëb ñu toog di xoolee euh, mm-hmm. na mais lii yàq lu mel ne xemme kii di euh, Amadou Ba mais dañ cee toftal ne paree guñu te opposition bi tamit ñu guñu mieux vaut ñu pousse li nga xam ne moo di élection yi et li di report ñu ngi koy wax di ko wax ñu ngi koy rek di ko ruumandaat rek muy dem léegi nag report bi kan lay profité mhm. man man pour man il faut ñu ñu jël affaire report teg ko fële bañ koo waxati ñu fexe organiser élection yi mucc ayib parti politique yi pare wuñoo ak c'est leur problème mhm. nañ nañu pare parce que euh, ñu dem élection ñu voté Sénégal fermer la page Macky Sall tijji beneen page. ak ku ñu ko mën tijji man xaw ma ko. donc cette idée de report là nañ ko bàyyi mais nag mais nag yaa ko wax sànq Aïcha. Mhm, mhm. am na yoo xam ne bu ñu koy ruumandaat da nga ciy bàyyi xel. Souleymane Jules Diop euh, man j'ai l'impression que ni sa sortie là c'est pas quelque chose de de gratuit. Mhm. am na lu ñuy lu ñuy lu ñuy préparé. est-ce que duñu bëgg a def mettre dans la tête des sénégalais et des adversaires que le report c'est possible ñoom ñu toog di xaar report ñoom ñu préparé wu dem élection mm-hmm. wala effectivement est-ce que report lu ñuy lu ñuy lu ñuy préparé la xaw ma ci dara mais report moo xaw ma ku mu arrangé mais du sénégalais yi waaw sénégalais ñu bëgg mooy dem élection le vingt cinq mm-hmm. tourner une page tijji beneen beneen page mais s'il y politiquement parlant mënul arranger le le camp du pouvoir mm-hmm. parce que ñoom lu ñu gën a dem Sénégal di leen gën a mere nag xaw ma xam nga comme déet nag du gën a dem Sénégal du gën a mel mais pour man il faut il faut arrêter cette de report là Sénégal de foofu wax naa ko fi keroog foofu laa d'accord ak Abdou Karim Fofana depuis 60 ba léegi ñu ngi organiser présidentielle mosuñu koo pousse et Souleymane Jules Diop lui-même dit que Macky Sall bëggul ñu wax ne moom moo njëkk a reporter élection mais Macky Sall li fi njëkk a def moom bari na de <laughs> li mu fi a def de loo xam ne Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye defu ko mhm. mais qu'à cela ne tienne pour mën a wax report taxawul beneen bi mooy dafa am lu euh, Souleymane Jules Diop wax te bàyyiwuñ ci xel mhm. mooy dafa wax ne une l'opposition bien organisée pour nous battre waxul ne l'opposition bien organisée c'est différent mhm. l'opposition pour nous ak l'opposition bien organisée pour nous mooy lan mooy opposition bi organisé guñu Ah, ñoom def nañ fit di takk nañ seen fit de. oui mais mais fit début la rek mais bu ñu organiser woo dëgg-dëgg xëy na bu ñu bu ñu defee parrainage ba pare ba dàq ñu ba enfin ba segg ñu a segg dinañ gën a organiser wu. <laughs> mais bu ñu bu ñu organiser woo mën nañoo gagné waay mais bu ñu organiser wu man dara beneen bi mooy dégg naa tey sànq laa ko mm. ñu ne. am na ay nitu opposition yoo xam ne dañuy mm-hmm. rejoindre le camp du du pouvoir. Mm. tey la ñuy def conférence de presse gis nga loolu am Amadou Ba xaw ma kan moo koy digal yooyu mais loolu mooy erreur. gis nga loolu day tax sénégalais yi gën laa mere. Mhm. parce que Sénégal dañuy jàpp ne tappale yi nga xam ne moo fi nekkoon ak ay transhumance ak yooyu ñu soxla un président boo xam ne bu ñëwee danaan Sénégal transhumance dina fi jeex. Mhm. injustice dina fi jeex yorin mu ñaaw dina fi mhm. jeex. sénégalais yi damay leen di jéem boole def leen ñu benn famille. may jiite leen le temps que ñu organiser waat suñu réew dem ci jàmm ak salaam. un président comme ça moom la sénégalais yi di soxla. su fekkee ne c'est un président qui compte sur la transhumance pour gagner.

rendez-vous mardi prochain nekkoon ci direct bi euh, gërëm leen sant leen nous rendez-vous mardi prochain ci beneen live de Moustapha au revoir jaajëfal Omar bu baax a baax ci euh, du côté de la technique monsieur Diène namu naa la aussi maa ngi lay ak Feuz Feuz Fall maa ngi lay bu baax a baax sama star bi <laughs> monsieur Diène mi ci congé bi mais ñu ngi lay nuyu xam naa ne mu ngi seetaan également <laughs> parce que moom wolof ne moo sax ci xol bi ay au bye bye c'est bébé <laughs> on est déjà à 10 000 là. waaw on est déjà à 10 000. macha allah. Aïcha kaay xëccal ma lii mu mën a génn.